ci réewum Sénégal daanaka ñëpp commencé seetloo non muy xeesal bi am ci réew mi te produit yi di jóge fu ne jigéen ñi di ko jëfandikoo léeg-léeg sax góor ñi di ci faral di laal muy bàyyeekoo fu ne nag ku ne ak gis-gis bi ñu ci am sëriñ bi ñu dajeek moom ci marché bi mu jàpp ne nag moom jigéen ñi dañ koy def ngir taaral seen yaram rek waaye naturel bi moo dàq. Euh, waaw xeesal bi moom euh, jigéen ñi koy def. Eh, li tax ñu koy def jubluwuñ ci lu dul yokk seen peut-être dana tax jigéen ji rafet bañ mën ko xool eh, bu jaayu mën a jar gis-gisam boobu nag wuuteeg loolu gis-gis bi nga xam si ne soxna si moom la am soxna si di xam la ne nag moom donte ne mi ngi koy def tamit ne nattu rek lañ ko mën a jàpp ah, déedéet man kay loolu moom ab nattu la rek nekk de xeesal moom ab nattu la rek nattu la ndax loo xamante ni yàlla suñu borom moo ko jëkk a tere soo dee def te mënoo koo bàyyi soo ca continuer sa wér-gu-yaram dana ca feeñ ah loolu kay xam nga ni nattu la ma ne wax dëgg yàlla xam naa yàlla nattoon na ma ko sax maa ngi koy def waaye su ma sañoon it du ma ko def su ma sañoon it ku ma déggal doo ko def. boo ko def moom day mel da lay jay rek da ngay dem ba jamono yoo xam ne nag da ngay réccu sax nag loo ko doon defee ndax bari na ñoo xamante nii fi ne ci gis di wax ak moom danaan la su ma sañoon bàyyi na ma yàlla bindee woon ndax wéra digu feeñ seen yaram gën ñaaw guñ gën ñaaw nañ meloon. yooyu yëpp moom am na ci moom. xalal bu jigéen bi nag moom di xam lay jafe-jafe yuñ mën a indi suñu wàllu wér-gi-yaram. yokk feebare laa si gis ndax parce que jigéen bu dee xeesal bëgg si taal loolu amul njëriñ. teenuwaay bi la yàlla sàkkee tenka bàyyi noonu moo gën xeesal bi xeesal mun naa dem ba ni la jàngoro boo xamante doo xam foo koy wax jeex bis bu la yàq bu ne oh, doo xam nan la lay yàqee daal day jékki-jékki sa yaram bi def ay cere boo mu def noo xamante ni day day ñaw daal sa yaram bi day salte daal ku la gis dootu la naw looti ñi nga xam ne moom seen yaram dafa xees moom naturel ñoo moom buñ doole nañ bàyyi noonu rek waaye ñi xam ne seen yaram dafa ñuul ñu bari bëgg xees ñoo moom maa leen wax ne bu leen xeesal nañ bàyyi noonu seen teint c'est que buñ tàmmee produit bu na dem ba ëllëg mu yàq seen yaram te boobaat du mujj feen dañuy pet rek. sëriñ bi nag moom di ko dëggal. non man moom. ci li ma yaakaar xeesal moom lu rafet quoi parce que non seulement yàlla bëggul kuy soppi ni la def comme xeesal dangay soppi ni la suñu borom def du lu baax tamit nit ki tamit bëri a ma jegee muy sama jigéen wala ku mu mën doon tamit bu ma ko gisee mu koy def dinaa ci jéem lu ma mën pour mu bàyyi ko képp kuy jigéen si àdduna bi te kay def daal su ma sañoon nga bàyyi ko te dem wut teenuwaar teenuwaar moom baax na si jigéen xale yu góor ins bi moom teint noir la ñu wër waruñu ko xees su ma sañoon daal ngeen jàpp suñu teint noir daa ta bàyyi xeesal bi dérange yi nga leen gisee sax da nga leen di ñeen ak moom sa xol day sedd ci demee bay bëgg eh, bu xees damay fekk jigéen bi nga ko bind mu xees moo xam mu doon naar wala pël wala tamit eh, noir damay xool koo xam ne noonu la ko yàlla bindee mais teint bi ko yàlla bindee boobu laay bëgg toujours mu bàyyi parce que mooy natt te jàpp naa ne moo gën ci moom parce que li la yàlla tànnal bokkul ak li nga xam ne yow yaa koy def sa choix bopp. doon na baax daal fekkente ne mën na euh, mën na am tam benn benn du def benn conséquence si nit ki mais conséquence yi muy def dafa bëri trop. parfois nga gis euh, koo xam ne dafa doon xeesal ci ak ndawam peut-être mu yokk taaram mais day dem ba jëm mag mais da ngay gis ne ne kii xeesal bi presque jëru ko woon parce que lu mu gagné woon ci taar dafay mujj perte ko ci ci ci ci bi muy nekk mag. mënuñu ràññee produit yi nga xam ne mooy yu baax yi ak yu bon yi. parce que boo xoolee eh, mën nañ wax ne réew mi ñu nekk contrôle bi taxul mu bari lool lool te produit chimique yi daf ci bëri ba tax na ne pour mu am wérgu yaram ku koy laal dana xaw a jafe ci yow. ëpp solo mooy que ni nit ki ni ko yàlla bindee mu sàmm ko fexe nag ba teint boobu euh, nekk teint bu silvisé bu naturel boo xam ne ku ko xool da nga ko bëgg. nit ñi ñu ngi dem mais bëri na ñoo xam ne ñu ngi dox mais xamuñ ci li dox lan la. te citoyen bu ne na fexe ba xam li nga xam ne mooy li gën. nit ñi ñu ngi dem mais bëri na ñoo xam ne ñu ngi dox mais xamuñ ci li ñuy dox lan la. te citoyen bu ne war na fexe ba xam li nga xam ne mooy li gën kon maa ngi leen di jaajëfal bu baax ci seen taxawaay di ñaanal sénégalais yëpp rek.